ku si nekk euh, sa tur ak sa sant di leen expliquer Saliou Sylla Saliou Sylla moom kenn du leen ko kenn du leen présenté parce que xam ngeen ko bu baax a baax baax si koñ bi la nekk ak ñun fii la defee léppam quoi fii la débuté ak ñun cadet ñun ñëpp ñoo bokkoon nekk nekk nekk si cadet ay si Santos bi te ren biñ biñu débuté nawetaan si si njëkk njëkk a participé def si ay moyenam si la bokk ko ren buñu nawetaan yi moom moom moom si la bokk quoi parce que def na si def na si euh, dooleem lu bëree bëri bëri bëri kon bu ñëwee fii soxla ñu pour ñu gisante ak ñun xam nga mooy loolu daal man communication bi mooy xaw a des maa koy tëb bu baax a baax nag mais moom sunu sunu sunu waay la lépp la quoi waaw sunu waay su sunu lépp la te gis nañ lim ñu jàppale depuis boobu ba tey mu ngi si mu ngi siy dox di si wax waaw mu ngi siy dox di si wax quoi nit nag euh, bu la amalee njëriñ da danga koy da nga koy amal wax dëgg yàlla tànk yi ñuy yëkkati tànk jàmm kese la parce que tànki nawle la tànki xaritoo la tànki mag ak rakk la parce que man dama leen considéré comme samay rakk ñi nga xam ne nii ñu si bari fii moom pratiquement ñoom ñëpp maa leen mag waaw léegi ñëpp yéen ñëpp dama leen considéré comme sama rakk considération boobu nag moo leen moo tax ma ne naa ñëw waxtaan ak yéen ci ñu jàppalante parce que jàppalante bi mooy fexe ba société bii nga xam ne nii fi lañ nekk fii nga xam ne ni fi lañ bàyyeekoo muy Touba xool nan lañ koy organiser ba mu gën a jag parce que problématique yi am ci dëkk bi bëri na am na loo xam ne sax duma ma ci rebondir li bàyyi Malick di wax parce que lépp loo xam ne def naa ko man jàpp naa ne sama bopp laa koy defal. parce que bu ma amoon àdduna la ci biir tamit fii laa koy indi amul fenn fu ma koy mën a yóbbu mu mu am njëriñ fu dul ci yéen ba tax na yenn action yi bu ma ko buñ koy def sax loolu moom du jar sax ñu ciy àdduwaat mais li ñu indi rek ngeen jàpp ne jàmm rek moo ñu indi fi nga xam ne nii fi lañ nekk dañ ñu investir tête de liste départementale pour élection législative yi. kon nag war naa am ay jéego yoo xam ne nii war naa ko amal man a ñi nga xam ne nii seq naa ak ñoom jàmm démb élection yi nag du élection présidentielle configuration yi du benn données yi du benn élection législative élection gox la ay nawetaan la parce que ki la gën a jege kooku nga mën a ànd ak moom liggéey parce que kooku moo gën a xam say préoccupation ñeneen ñi ni ma koy faral di waxee souvent parce que ñun Touba dañu rafle ay député souvent noonu laa ko mun waxee parce que jafe-jafe yi fi am xam nga député yi bu ñu demee ba assemblée di voter ay proposition de loi wala ay projet de loi dafa mel ne ay député parti la ñuy doon wala ay député coalition de parti te ku nekk xam na jafe-jafe Touba yi en ci ci accès au financement infrastructure yi manqué ci dëkk bi ak surtout assainissement wu dëkk bi parce que ku ci nekk bu la laalul tamit laal na sa mbokk mën na bi ni muy commencé def Touba jéggi na dayoo kon nag ñun jeunesse bi en commençant par ñun ñun ñoo ci mën a taxaw parce que Touba bu leen yaakaar ne kenn dinañu ko defaral de ñun ñoo ko mën defaral suñu bopp de que ça soit leer leen wala mu leen leer fii nga xam ne ñu fi lañ dëkk ñun ñoo ko mën defaral suñu bopp parce que dégg nañ fi façon proposition bu nekk mais nag niñ koy defaralee suñu bopp wala keneen ni mu ñu ciy fekkee jàppale ñu ñun ñoo war a am benn certaine organisation boo xam ne nii képp ku ñëw rek pour appuyer ñu day yomb loolu nag ci li muy commencé ñu xool ñi nga xam ne nii moom ñoom la ñuy teg ci pencum ndawum réew mi parce que ku lay représenté assemblée nationale li may wax sama njël benn wax warul doon député parti politique wala député coalition de parti député askan bi la war a doon en premier chef loolu dañ ciy war a bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que souvent loolu moo lay may benn indépendance bi boo xamee ne yow askan bi moo la moo la élire di nga am benn taxawaay booy am mais boo yaakaaree ne rek parti politique bi moom ma élire bu ma waxee lu lu wala ma voté loo xam ne nii bokkul li mu ma proposé rek dinaa ci am ay jafe-jafe noonu boo koy demee rek dinga nga di nga nërmeelu nërmeelaale sa askan bi la bi la fal ñun nag loolu lañ bëgg xam nga ñu am ci taxawaay yu am solo parce que du man da ngeen may élire rek may def lu ma neex wala may amee may gisee nu ma neex comme que yàlla suñu borom dogal na ñun képp ku bëgg a falu da ngay ñëw fi fexe ba falu boo faloo boo demee fàtte ñu léegi nag ñun nañ nañ organiser wu jéem a fal suñu bopp jéem a xool député boo xam ne nii wax dëgg yàlla député yii nii bu ñu leen falee ala kulli ali dinañ mën a taxaw suñu ay préoccupation loolu rek mooy yitte suñuy ay tànk te wax dëgg yàlla ñun député wutuñu ci prestige yi ci ñu ñuy wut ñun ñi ngi liggéey ñi ngi sant yàlla suñu borom bu baax a baax baax kon nag du leneen moo ñu ci dugal li ñu ci dugal rek mooy gis nañ suñu société ni muy commencé mel ñu bëgg ci dugg ngir fexe ba suñu société gën a jag ci société yi loolu moo ñu moo moo waral ñu investir ñu ci liste bii nii tête de liste département Mbacké ñu ne nag nañ ñëw waxtaan ak yéen fexe organiser wu xool yan stratégie la ñuy def ba mën a yàlla suñu borom mën ñëw suturaal parce que nag adduna bi nag dara xëyul sotti ah nii la ñëpp commencé dañuy commencé organiser wu essayer parce que bu ñu wuñ dul am li ñu bëgg mais essayer boobu noonu day am organisation am dynamisme am gëm-gëm. parce que loolu mooy il faut que fibre patriotique boobu noonu animé ñu pour ñu mën a atteindre suñuy objectif man gis-gis yooyu laa am te am naa yaakaar ni gis-gis bu yooyu ngeen war a am te man xam naa ni giir na ma ni man gënuma leen a bëgg dëkk bii ñu dëkk kon nag pour pourquoi pas ñu organiser wu xool yan angle la ñuy def nan la ñuy def ba fexe ba élire ay député yoo xam ne nii dinañ mën a taxaw suñu ay préoccupation wax dëgg yàlla xam naa ni temps bi gudd na li ngeen war a def lépp bëri na bugguma di jël seen temps lu baree bari comme suba dinaa fi ñëwaat fekkaat fii yeneen gars yi nga xam ne nii amaana ñenn ñi ñoo leen jiite gën a mën a waxtaan ak yéen mu gën a mën a yaatu en tout cas daal ngeen jàpp ne loolu moo nekkoon suñu ay tànk loolu moo ñu réunir tey wax dëgg yàlla mën nañ ko waxtaanee xool yan stratégie la ñuy def ba fexe élection législative yi ñu am ci représentativité bu am solo assemblée. di ziar ñëpp di nuyu Baye Sall parce que moom si sax yaakaar ñëpp xam na la jëlul kon wax ji di bari. parce que bisul ñu jàppale rek ñu suñu bopp lañ jàppale quoi parce que fii ay jeunes lañ mais ñu ci bëri am nañ carte d'identité mais nag li ñu lay jàppale mooy dañoo bokk koñ bokk lu ñu bëgg yow tamit nga ñoo jàppale parce que ñu ci bëri fii yaakaar naa xamuñu ni équipe bi commencé mais man xam naa ni ñu commencé bàyyi taalam bi ñu ñoom da que loo gisoon dafa am secret mais gis nañ bi ñu ñëwee ne la carrément dañoo bëgg nawetaan gis nañ moo xam mu bëri na moo xam bëriwut mais dugal nga ci sa loxo kon sama gars yëpp ñu ngi sa ginnaaw dana la jàppale nekk sa ginnaaw dooleel la ma yow tamit bu ñu fàtte benn yoon nga jàppale ñu ci lépp mais nag incha allah dinañ gën a defaat sax rencontre boo parce que dirigeants yu bëri tey jii ñëwuñu coach bi ñëwut ñëpp ñëw ñu bàyyi taalaa fi nekk daal jàpp nañ ñu ngi sa ginnaaw te gis na xam na xam nga lu bëri xam naa lu bëri moo tax amul benn problème na yàlla jàppale leen rek ba li ngeen